rồi mọi người cũng tới được thế này nó có được và cần ý nghĩa tiếp theo đừng nói lộn lộn lộn chỉ bị cái mà lộn wow wow cha đi như chú lên đúng chưa chị nguyện gì dành gì dành doyen. noo ngi sant noo ngi sant noo ngi sant lool day saa su ne nu defee ni moom taxaw di daal noonu la waaye ah moom day mbàkke sa mbir nekkee te parce que naa koo xam waaye nag day bettee saa su ne saa su ne bu dikkee la nga defoon xamal nga ko da ngay tey gisaat ni sam xam-xam doy loolu di kat yàgg na maa moom yemul fenn waaye ren jii fi mu ko indiwaat bu ma xamoon nit loola moom bett na ndax sampé ci mais na nga ko def ak mbooloom àddina mi ñu daje maa dàq pénc ci pénc yi maa gën a xumbale mbooloo ma te na nga ko sampé mooy yéem ñëpp na ndax moom man daanika dama àndul ñu bi jaaw ak cee niim moom daanaka euh, ay ndaw rek góor jigéen ñoo xam ni ni nga leen defe ci wàllu bëgg ci wàllu xam xam xaar ndigal ak nu ngu ko jëfe loolu moom yàgg naa nag ci yoon wi ndax maa ngi ànd ak yow ak yooyee nga dogal di mille neuf cent quarante six ca tase ca tudd xabaan wa ca yoonu kër Cheikh Maa Diop ca saa tool bàyyi ba ca wetu mbul ka boobaak léegi maa ngi màggal si boobaak léegi Jibril ga ma koy ma may ànd ak yow ba buñ la doon xam kenn waruma laa gën a xam waaye nii nga defee dama ko gisul feneen musuma koo dégg ci taarix yi ma koo dégg nga jaar ak man musuma dégg kenn te ñu jëkk ña ca yonente ba fii ñuy waxe musuma musuma gis ci taarix fi nga jaar ak man ku fi jaar ak ku la yaakaar ku la gëm ku la sopp ku la topp gisaguma ko ba tax na man maa war a gën a sant ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp moo tax sa dimbali ci man de sax dimbalee ci ma ci nangam waaye li li nga xam ne bi moom laa dul dañ mukk te di ko sàkku mooy Mbàkke yokkal sama ngor ndax ma man laa gën a sant yokkal sama xam-xam yokkal sama cofeel gii yokk ba positif maanaam seen nibal ci man bi rek laa yaakaar yokk maa dimbali rek ndax sama yéene day leer na ma sax ni moom day mel ni saa su ne day yokku ndax bu ma yéenee lii tey bu ëllëgee dinaa xeet su yéene dama koy weesu maa ngi ñaan nga yàgg fi Mbàkke sa màggal gi ne maa ngi dogu si sa jëmm ji nga sax fi dàkk di ko màggal ak wér ci kanam àddina sii nga xam ni buur li ñu si la dem naa léegi ba wax ba wax ci barab ni màggal gi day day mel day door a tàmbali dinañu dem ba ku ñëwati boo yemee njaareem defe ne yaa daan ndax dugg Tuubaa gi ku fi dëkkul te weer fekk la fi doo fi jóg boo génnee doo dugg Tuubaa Mbàkke yàlla na nga yàlla na nga yàlla na nga jiite lépp yàlla na nga fekke lépp yàlla na ko ànd ak yow jërëjëf Mbàkke jërëjëf siyaare bi nga xam ne. yoon yoonu màggal. mu ci loolu. xam ne bu ñëwatee. nga jëkk maa nuyu. loolee moom laa doon dàggu si matin. te muy loo xam ni ak may laa ko def bu wéyee wéyee loo xam ne ak mu jot. ndax defoon naa ne bii yoon damaa amoon defoon naa ne bii yoon moom du ma mën a dugg ci kër gi ndax yi fii ni mu demee ren ndax boo dafe dafe dëgg dëgg dëgg nit ne bis ci la daan am waaye ñu ni ginnaaw suba la kenn mënta gis sa kër gii loolu moom day door a xew man bii dëkk daal di kan man fu may jaar ëgsi waaw waaw mais kon nag kon yu bëri. Amen.

ah waaw mu yóbbu màkk ma yóbbu màkk mu gay waaw moom day bàkkee moom ko defal tey li ngeen a defal moom kat màkkaam gi moom lu doy boo ko gisee dafa soppi ko da ngay gis ni moom am nakali Nyukuk makan aku kut Eh, kau kat bumi ni dia makan Ayo forum nakal Kutu sejuk yang makan Makan dengan darah gajah Namun di Kalau dia kotel Dia kata cantik rek eh. Sampai nyucat aeroport Ba Dua nyiak sanar maslihat nit ding de no ko ci def na gi xëccu mbolo bi doon wi bañu mëna yé ay camion mu mënu leen ni na na na ko li meñu meñu ko tak té la jox awa ni def ak ni day sa ba neex rek danoo am lu ñu xam lu wér xam ni ah ñun jëmul fenn ñun gisuñu keneen li nga doon dimbali nga nu ba nu am luñ ci tof ba tax na ñun kat gisatuñu dara ci addina gisatuñu ko dàkk nag rek sa mbir loo dégg ni doo nga ca te mu mel ni du lu ñu ñëw di la ko laaj dan muy bàkkaar نجي إلى عليك ليل فتي مربا مرب رسول نبي نجي إلى عليك ليل فتي جميل محيا زكي الحجاب مبال بعد لقد تري زيم بكسف القابل nan la lool nan la lool bu ñu fi ñëwee te man nag kooku di jël sar wax ji wax ja ba mu demee bitim réew mënuma laa wax ñaata ñoom nga def guddeeg bëccëg ñuy téléphone yi jënd fu ñu ko wane boo fa fàq lu yéeme la loo xam ni mari ndekete moom man de ba ma koy def wax dëgg yàlla xaw ma woon ni nekk na la ko ca jaarale fàttal ñëpp rek bitim réew de moom léegi ma jàkkaarloog yow di moom rek la ñu bëgg dootu ñu bëgg ñoo seetaan leneen déedéet ay at waaw. Allah man Jaleel Bye-bye.